lii mooy politique leader yi ñoom ñu ngi nii Diouf Sarr a ngi nii Amadou ngi nii kenn xeexul kenn xulawul mais militant yi ñoom ñu ngi reyante di dóorante di jamante comme tout le temps rek ñoom ñooy ñooy golo yi ñoom ñooy buubu golo yi li ma dul defaral kenn man directeur eh, eh ministre du tax ma xeexal la directeur du tax ma xeexal la waaw doomu wala kaana bi ñu ngi reyante ñoom ñu ngi reyante ñu ngi jabante ñu ngi dóorante ministre yi ngi nii ñoom di bëggante seen waaw bu ngeen yeewul doot leen yeewu ku si dee yaa perte ñaaw na lool ñaaw na lool ministre Amadou Ba mu ngi nii toog ak euh, yeneen ministre de la république Abdou mu ngi nii ministre Diouf Sarr mu ngi fi Alioune Sall frère du président mu ngi fi ñoom xuloo wu ñu xeexuñu mais militants yi ñu ngi rente waa Diouf Sarr yi ñooy xeex ak waa Amadou Baye ñaaw na lool gis ngeen ba si garde corps u Amadou Baye waa Diouf Sarr ñu ngi leen di attaqué sànq ba léegi doy na waar waaye oh oh oh oh oh gaa yi ngi sànni ay xeer vraiment mujj naa ñaaw mujj naa ñaaw ministre ministre oh na ñibbi itam la ñibbi bu yëndul fii ministre dama ñibbi ah lu yónni taxaw fii dama leen ñibbi ah waaw da ñibbi waaw ñu ngi sànni xeer ñu sànni xeer Amadou Ba dama ñibbi dama ñibbi dama ñibbi na dem ñibbi na dem ngi sànni wóoratul waaw boo ko defee ministre bu ñibbee bu ngeen neexee ngeen rayante fii nag waaw mu ngi noonu après ngeen xeex ngeen xool après lu ngeen di siy am na waar yéeme donc mu ngi noonu jàng yi tas na ma ne ko jàng yi na tege leen mais de toute façon dañoo dégg Amadou Ba li mu bëggoon wax mooy moom nekkul candidat Amadou Ba loolu la bëggoon déclaré nee na moom nekkul candidat xëy na nag nit ñee bëgg mu nekk candidat mais moom bëgguloo nekk candidat Amadou Ba loolu laa gis ba muy jël parole ba ko jur saati ne Dakar am na ñaari candidat Amadou Ba ne ko bul ma boolis candidat yi